بجهالي جرب الأول أنا يا صلاتي إذ جد الأنبار وأنا أولادي من كل خلق سلام بركة لا يتوكل يا ربي لم نعلن سمنك يا جميع الآباء ولم يرى ñàkk koo def nga mën ko ñàkk koo def yaay waaye yàlla def na xam nga ko yaa ngi koy def te wax dëgg yàlla yaa ngi koy def nu mu gën a rafetee xeeboo kenn yaa ngi saafoonkat ñëpp wax dëgg yàlla macha allah. parce que nag mbiri tamit du question diw am na xaas rek da koy tuddee kii dara mais da ngay seet jikko ba comme ça mu doon royukaay mais monsieur le maire la royukaay la ay xame démbam fàttewu leen waaw ah, te lépp lu mu mën kéem tolluwaay kàttanam moo koy kooku su taxawee euh, ñëw teewee suñu bés bés bii rek la ñuy am pour wax dëgg yàlla seedoo ko ci kanam kilifa yi waaw xëy na comme mun a yéeg fa ñu bëggoon mu yéeg mu yegg fa fépp mu euh, président de la république xam ne bàyyi na fi ndaw bu am solo te xamal na ko boppam xamal na ko boppam man benn euh, guddi googu dama ne waa Tamsir fan la ne président laaj ko nekku fa président war a jàll mais ba Tamsir dellusee dafa dellusiwaat naa la ko kon kooku ràññaate na ko waaw mu ne Tamsir le très dynamique maire de Diouroup Diouroup àll de bokkul ak Fatick commune bokkul ak Thiès bokkul ak Kaolack Diouroup àll waaye ah, dañu ne day euh, gàttal waaye ci jur gi la bokk Diouroup li muy tuuti yëpp monsieur le président de la république ràññaate na ko à travers son maire euh, le maire nga jégal ma waaye mbooloo aussi ngeen jégal ma. amaana euh, ñu fi daje yëpp du question déglu la am seet def moo leen fa andi du question xanaa la diw di wax moo ko fa andi ku nekk am na loo ko fa andi ngeen jégal ma suma fu seen ngeen xam ne wax dëgg yàlla tamit ah xanaa ki fi teew dayoo moo toll loolu ñu war leen ko mën a wax war leen ko mën a seedal ndax añaan baaxul soxor aussi du yokk borom dara waaw bés bii lañ am pour wax dëgg yàlla mun ko seedal seedal ko ci ay mbokkam seedal ko ci ay euh, naataangoom moom équipe ñoo leen di jaar jaajëfal di leen sant di leen a monsieur le maire euh, ma yem foofu si noonu mbir mi laata moo doon meeting xëy na duñ ko gisee noonu waaye daal ma ma yem foofu te di la jox kàddu gi ah, nga jégal ñu rek wax dëgg yàlla ci euh, à chaque fois sollicitation yëpp yooyu waaye tamit xamal ne pare buñ de ñoo ngi ñëw à chaque fois wax dëgg yàlla tànk yaa ngi la yàlla dina may wër jàppal ne Cheikh ak moo ngi ñëw waaw lépp moo yaakaar ne wax dëgg yàlla war ko koo mën a def ci gox bi wax ko mën a def ci dëkk bi du ma hésité wax dëgg yàlla pour di la ci tudd asalaamaaleykum booroon may jégalu lu bëree bëree bëri ñu bokk jox monsieur le maire mu yëkkati kàddoom su ko defee ñu jégal ko mun koo si monsieur le merci beaucoup Cheikh euh, imam maa ngi lay nuyu imaam sama goro la sama xarit la maa koy nuyu bu baax nuyu suñu papa yi toog fi yëpp shérif euh, yi moom nuyu suñu bàyyi bële toog suñu mag yi suñu morom yi suñu xarit yi ñëpp ñi fi nekk nuyu mboolam boroom xam-xam bu fi nekk nuyu jàngkat yi nuyu waa dëkk bi waa Njuuf yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp ci gox bi lañ jóge ak ñi dëkkul fii sax ñëw fii tey ñu ngi di nuyu bu baax ñaan yàlla seen guddi gi yàlla barke la di nuyu sama xarit sama frère Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye nag bu ma xam-xam ma am moom bu ñu nekkee xale ba léegi ñooy ànd ak ñeneen mais particulièrement maag moom dañuy yàgg mooy sama xarit sama frère di nekk nag koo xam ne dafa yàgg ci diine Cheikh laa gis suñu ñi ñëpp suñu génération yëpp ba mu nekkee xale bu ndaw dafa teel dugg ci affaire yu diine donc euh, lu muy def nii lu bees def ci yàgg keroog maa ngi gis euh, useenu Gassama doomu Mbacke Gassama mu ne ma mais ana Cheikh mu ngi bëgg diine ba léegi ma ne ko Cheikh kenn du ko dindi ci diine donc xam nga kooku euh, daf ci yàgg di ku baax nag di ku baax ku ñàkk ki Euh, di nuyu dëkk bi yëpp imaam di la di jégalu parce que li may wax rek xam nga fii suñu dëkk la te suñu sañoon dëgg dëgg neex yàlla euh, dañuy toog ak yéen ba fajar mais su ma la waxee ne dëmb nelawuma ba léegi parce que dañoo amoon ceet le ministre mooy Sarr mu nga xam ne sama xarit la sama frère la moom moo doon ceetal tey ñu def fa affaire séeréer dem jëli jëli ceet bi guddi ba ba fajar nelawuñu ñëw continuer ba ba heure may wax ak yow donc euh, te suba dafa fu ma war a dem aussi su ma jógee fii am fu ma dem ba balaa may ñibbi donc mu nekk yoo xam ne des fois c'est ñuy ñaan rek ngeen ñuy comprendre du ñàkk a bugg a toog mais xat-xat yi rek mooy tax. ñuy ñaan vraiment ngeen ñuy comprendre ñu jàppale ci côté boobu yeneen ñu jàppale sax mais jëm ko gën ko expliquer nit ñi rek parce que nit ñi mun nañu gis ñëw rek ñëw ñu dem ñu ne ñu xam ne ciy gisee te yàlla xam na ne du loolu may nuyu waa dëkk bi yëpp nag sama mbokk yi ñekk ci dëkk bi ñoom am na ñoo fi gis bëri ñoom grand taalib sama jarbaat bi xaadim ak ñeneen ñu ma gisul sama sœur ak sama jabar yi nekk bi gis naa ci ay fii ak ñeneen ñëpp ñi dëkk bi yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen jàmm daa njujum nag man am ma seen fay am ma seen fay parce que c'est vrai fii laa juddoo yaroo fi màggee fi mais gis naa seen taxawaay gis naa seen jàppale gis naa seen ñaan parce que nag euh, su ma mënee jóge fii Dioudiouf nekk dëkk bu tuuti dem ba nekk maire Diouroup c'est que waa jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ci ñaan ci jàppale ci accompagner ci lépp maa leen di gërëm awma seen fay dama bàyyi yàlla yàlla yàlla yàlla defal jàmm ah di wax rek ne imam ñu ngi lay gërëm di la sant parce que di nuyu sama grand frère Cheikh Sañ mu ne non Cheikh maa ngi koy nuyu bu baax suma grand frère bu baax euh, di wax ne imam euh, lii dafa am solo te dëkk bi euh, lii ngeen fi def dañu ñaan yàlla mu sax fi euh, diine dafa nekk lu am solo ci société donc su ngeen ñëwee jël bés ci bés yi jagleel ko yonent bi ñëw fi di ñaan ci dëkk bi dañu ñaan yàlla rek bu ngeen fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu di ñaan yàlla di leen di jox kàttan ak mën-mën pour que chaque année ñu def ko defoon nañ ko daaw ren ñu fekk ko yàlla nañ ko fekkee déwén ñun ñëpp te bu kenn fàttaleeku sa morom euh, di wax nag na ñun au delà de sax maire lañu mais ay doomu dëkk bi lañu fii lañuy ñu sox soqeekoo fii la ñu juddoo donc lu fi waay di def rek am nañ ci cër waxuma Diouf kese sax mais commune Diouf lu fi waay di def rek am nañ ci cër luñ ci mën dinañ ci def soobee yàlla pour jàppale pour mbir mi gën a dox vraiment imam maa ngi lay gërëm di sant encore une fois de plus di sàkku ñaan ci yéen ak si suñu papa yi ñu ñaanal ñu yoon bi yoon bi yoon bi set leer parce que nag ñun ay ndaw lañu te ndaw nag soo nekkee ci yoon nekk ci ay responsabilité da ngay ñaan ñaan moo la mën a aar donc euh, sàkku nañ ci yéen ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla dimbali ñu euh, yàlla dolli ñu xel bu xel bu rafet doolu ñu man mën doolu ñu dal doolu euh, ñu aar pour que li nga xam ne dañ ko am yéene ci réew mi ci dëkk bii di di ñaan yàlla képp koo xam ne ñëw nga fii yàlla na nga ñibbi ak jàmm fekk fa jàmm jàng bi jeex ci jàmm di nuyu suñu papa yi yëpp suñu borom xam-xam yi ñu fi fekk yëpp di nuyu ñëpp jàngkat yi ak ñëpp waa dëkk bi jërëjëf imam merci beaucoup. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ila yawmi din amma baad mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dañoo waroon a commencé ci siira waaye monsieur le maire ñëwee comme ni mu ko waxee xat-xat yi nga xam ne mi ngi ci kanamam ak responsabilité yi nga xam ne mi ci kanamam ñu cërelee ko présenté ko mu joxe discours am ñu tontu ko su ko defee ñu soog dugg ci siira bi ndax moom am na yu bëri koy xaar. monsieur le maire ñu ngi lay wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci sa dëkk ci sa famille ci sa njaboot daanaka du guddal ndax euh, Cheikh Ndiaye mii sa xarit man ak moom samedi ak dimanche lañ donc fu mu teg tànkam ñun mënuñ faa teg suñu tànk te alquran dafay wax mu ne seede yëpp baax na waaye ki nga yoroon seedeel la seede boobu lañu war a gën a gëm wa shahida shahidu min ahliha ki nga dëkk ak yaroog moom bu la seedeeree dara jàmbur yi mën nañoo sukkandiku gëm seede boobu ndax mën naa am ñun bañ la xamee waaye moom mi nga xam ne yàgg na ak yow foog yow yaroog yow nekk ak yow taxaw lu mel nii wax dëgg yàlla damay kàddu damay gàttal sama kàddu ne Cheikh Ndiaye mii fu mu wekk yërëm man mën naa ko wekk sama yére ndax xaw ma ko ci benn caaxaan xam naa ko ci dëggu xam naa ko ci bëgg diine xam naa ko ci kam-kam comme ni ko waxee euh, di la wax ne la bés bi Sénégal yëpp ñëw fi président naa la sànq sëñ Moustapha alibati nee na ndaw kan nee ndaw mu ngi ni toog choroba wii nga xam ne kii boo ñëwee ba di mun a war dañ ko jox kër spécialement nga xam ne ci baytu sallallahu alayhi wasallam boo demee ci kabila bi ñu bokk ci Barayna kenn gënu leen a jege yoon bi sallallahu alayhi wasallam boo demee mën mun a wax dañ koy xàllal kii fa la dëkk mu nekkoon Dakar bàyyi lépp ñëw te boo xoolee sa wax yëpp arab dafay wax mu ne fi ngay xamee borom xol bu baax buy wax day ñaanal nit ñi yëpp ci sa wax yëpp mooy ñaanal nit ñi kon am na ñoo xam ne discours lañ jàng loolu am na luñ ci déggee ma lay garantir li nga ñaan yëpp dana nangu ndax ñii luñ ñaan seen kanam yàlla du ko rés ndax deretu bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla moo wax ne yonent bi nu mu ko ñaan may ko te yii bu ñu waxee amin yonent nga ñaan ñun kon nag yàlla doo ko nangu ñu lay sant bu baax di këram gërëm di la ñaanal yàlla ci sa taxawaay man moom su ma santee nit ñi duñu wax lu tax koy sant ndax jumaa ji gis nga fi mu tolloon ci finir ci lu bëree bëri mu dugal ci loxoom sonn ci wax dëgg yàlla moo tax man du ma julli mukk te ñaanal ma la wallahi lazim dëkk bi seen réew te loolu dafa am fu mu ko teg bu dul dara sax responsabilité bi nga xam ne yaa ngi ko ak jullit ñi nga xam ne doomu aadama yi nga xam ne waxtu nekk yaa ngi dox sa soxla am na droit ñaanal ci loolu sama jumaa almadi waxtu ma dulee dama ñaanal président ay dégg arab xam ne war a yisaa ñu koy dégg benn waaye ba lu tax nga koy ñaanal mooy ko kii bu signé dañu bàyyi suñu signature ñun ñëpp kon am na droit ñaanal ko ñu bàyyi complexe président de la république du caaxaan xam ne dem na ko naa faju naa lekk naa am sécurité naa jàng lii lépp nga teg ko benn nit responsabilité yëpp ngeen jël benn nit teg ko dénk ko ay ministre dénk ko ay commandant dénk ko ñoo xam ne Sénégal yëpp moo wax ak ñoom ay DG ak yi ñu ko ñaanal dénk ko réew mu ngi mel ngeen dama benn bâtiment dénk ko benn entrepreneur entrepreneur boo ngi war boo ñaanal ciment mat suuf mat peinture mat mu kilim nga mën a noppal ñun loolu mooy suñu relation ak yéen dafa sérieux ñun ñoo leen di liggéeyloo yéen waruñu leen a ñëw dañu leen war a ndax fu nekk nii soo ñëwoon jàll sax yoonu Cheikh Ndiaye wala kenn ñun dañ ko nangu sa waaye lii sa mbaar la ak rafetal yàlla ñaar rafetal jëm ci yow. réew mi nag ah comme ni ko waxee rek toll na ci moment yoo xam ne ñun am na koo xam ne fu mu teg tànkam ñu ñëwee baatu suñu tànk comme Cheikh ñu ngi ko waxee parce que du politique du médecine waaye. moom loo xam ne buñ boo teelee boo seen économie fukki at ak ñaar boo fukki at ak ñaar yàlla may na sens pétrole fay sa loxo yàlla may na sens boo demee bëcc àll bi gën a sori mu leer yàlla may na ay jigéen yoo xam ne weeru nekk ñu jël ay brousse jox leen ko am yàlla may na sens nit ñi mën a gis gis mboolem kër diine ay kër gan ay daara moderne lii lépp nga def ko wala ñu la merci ngay dem bàyyi réew mi ci jàmm amoo benn problème. insisté woo kooku wax dëgg yàlla war nañ ko remercier yàqu-yàqu yi du moom kese réew kenn nit du ko doxal réew dafa am ñoo xam ne ñooy équipe bi Sénégal nag dañu miin bu yàqu bu équipe bi lu yàqu dañu ne góor bi déedéet ñu football nag ñu football nag waa ji nga xam ne mooy téye bi di football kooku am na responsabilité ci match waaye ki ne ci quarantaine dëgg la su bii duggee gars yi ko waaye bu zone yi football la kon bu zone yi football la yàlla mën nañoo may naan Sénégal ji ni du ko jiite Malaga du ko jiite ku dul Sénégal ko jiite nit rek moo koy jiite ki ko jiite nag ñu Sénégal yi ñoo war a jàppale benn mënu leen kon ñu ngi leen ñaanal yàlla di sa tur président de la République di ko ñaanal yàlla may ko ndam may ko tawfiq may ko fit ba nga xam li ko dese même bu dee benn fan sax. Ah, du ci avale du ci tiit du ci yàqule te wax dëgg yàlla ku sérieux ak ñun la defoon nañu lu baax waxoon nañu lu baax dem na université tuddee ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass fekk na mu yeggali bu yàggoo rek lañ inauguré hôpital boo xam ne ci Touba Touba bi dañoo ñëw di ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi mu liggéey taxul ñu toog fii waaye dañoo xamal ne ñun xam nañ réew mi ni ñu tëddee te loolu dafay rafet ñu expliqué ko nit ñi pour ñu xam. ne ñun ñu ci jàmm li gën a amat solo ci li may fi may tëjee ci li président wax mooy ne sécurité réew bi du ma ko caaxaanee dafa am wax bu ma mu ne kii bi ñu fekk Mame Malick Sy amee ko Thiamour Bamba amee ko Mawlana Cheikh Ibrahima amee ko mu ne doy na ko bëggul kenn ku ñu perturbé sécurité boobu ñun doy nañu kon yéen a xam ne ngeen bëgg yàlla yàlla may leen seen choix yàlla yàlla dëggal ko seen choix yàlla yàlla dëggal ko. ñu ngi ànd ak yéen ci xol ak ci xel ak ci yoon di ñaan yàlla yàlla dafa ñu jàmm ci yoon yi di jaaree rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bëgguñ naa teeru bëri comme ni ko am na bërëb yu bëri yu lay xaar sa xarit Souare Diouf léegi dafa jógee def teraanga bi réy moom it demoon na ci gi bi kon waxoon na ma ko euh, maître Bachir tamit moom Bachir wax na la war na ma def ci bés bi ñeneen ak ñeneen euh, may sa may ko yónnee na xaritam may sa waaw yónnee na xaritam fii sànq ci tàmbusaay ñoom ñëpp wax dëgg yàlla góorgóorlu nañ yow ci ñëw nga. yaa azimu wa saxani zallaat yaa xalimu min kulli lmihan ya rabbana bi gawdika almuazami شيخ الطريقة الهمام الأكرم وسره السري في العوالم اغتفنا بالقدر المحتم Allah nous protège et protège le pays et nos salutations et nos prières son Excellence le Président et toutes les autorités, en passant par notre maire. Merci beaucoup pour tous. Allah accepte tous nos, tous nos prières. Assalamu alaikum wa rahmatullah.